attee ci aju ak wàllum indisposé te mooy mbaax ak la ci aju ci atte wax nañ ci lu bëree bari leeral ci yu bëree bëri yi xam ne xaj ne ci waxtu tey nag la ñuy a dugg nag ci ndey mbili gi ndey mbili gi mooy ki nga xam ne li nga xam ne moo waral yooyu yëpp yiñ jàngale bañ tàmbalee ba léegi ci laab ci jikko yi laab ba laab jikko yi jeex ñu laab laabu ndox bu mënee nekk bu mënta nekk laabu tiim mu ngoog sangu farata mbërëg meret léegi de li tax ñuy waaj waajtaayu réew yëpp mooy mag mite mooy julli tey dañuy jàng waxtu julli yi julli kat dañ ko wutal ay waxtu alquran daf ne inna salata kanat ala almuminina kitaaban mawquta julli kat daa war jullit ñi ci ay waxtu yu leer yu ñu yu ñu yu ñu bind ko ñu war ko caa def war ko caa joxe alxuraan junj na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko tafsil na ko wam leer naññ aqimi salata wa aqimi salata tarafayi nahaari wa zulafan min alleyli inna alxasanati yudhibna alsayi'at dalika dikra lizakirin waroom xam-xam yi nee nañ aaya bii dafa indi juróomi waxtu yëpp tarafay nahaari moo boole suba ak takkusaan ak ak ak tisbaar ak takkusaan zulafan min al-layli moo boole timis ak gee mu ne nag inna alxasanaati yudhibna as-sayyi'aat yu baax yi dañuy effacer yu bon yi yéen dafa dafa dafa dafa jàngale julli mu ne julli day mi ngi mel ne ak dex gu nekk ci buntu kenn kër kenn ci yéen ak dex bis bu nekk mu sóobu ca dex ga juróomi yoon sangu mu ne waa jàpp ngi ne koo kii dana tilim dana dana am tilim des ci moom ne ko déedéet mu ne julli juróom noonu la mel ci ku koy julli ni mu ko war a jullee ci waxtu mu ko war a nag dafa am waxtu woo xam ne ci la ñuy jooxe ak waxtu woo xam ne ci la ñuy fay ak waxtu wu ñu tànn mu gën ak wi ne ku am ku am empêchement islam dana la may ba booba waaye nag julli li ci gën mooy def ko ci njalbeen gi mooy waxtu ñu tànn moo tax borom Laxdari di jàngale heure yi ñu tànn tànn na jàngale na heure yi ñu tànn jàngale heure yi nga xam ne ku amul am ku am empêchement wala amoo pexe euh, man nga caa julli mooy daruree mooy waxtu lor wi waaye nag la gën mooy wañu tànn mu tàmbalee ci tisbaar lu tax mu tàmbalee ci tisbaar yéen sallallahu alayhi mu demee Israa Mi'raaj ba ñëw tisbaar la njëkk a julli daa ñëw toog di xaar Seydina Jibril ñëw ci hadiis si Jaabir ñëw jiite ko tisbaar bu jant bi rek rombee digg bopp rek ba mu jengar ñi ko rek romb digg romb bopp rek mooy zawal bi mu passé xattu istiwaar ci kaw zawal mu ñëw daal di koy jiite tisbaar daal dem mu toogaat ba euh, kenn ku ne sa ker tolloog yow mën ngaa wax trois quatre heures wala quatre heures nangam quatre heures jëm quatre heures et demi mu ñëw jiite ko euh, takkusaan dem mu xaaraat jant bi so mu daal di ñëw jiite ko timis dem ñu dem ba teg ci li ma waxtoo genn wàll wala waxtoo fukki minute juróom mu dellu si jiite ko gee dem ba fajar xaree mu ñëw jiite ko suba dem waxtu mu ko jiite woon démb ci tisbaar bi mu jotaatee tey ñëwut daa toog ba waxtu mu ko jiite woon takkusaan di waaj a jot mu door a ñëw jiite ko tisbaar daa dem dem toog toog ba jant bi di xolombaay di di xam daf ne ba jaune moom la ñu al israr mooy gelga ga al israr dafa am ñaar al israr bi saad mooy ah, bu demee ba jant bi di waaj a so ni naaju jaune woowu naaju mboq woowu ak al israr bi siin mooy bu demee ba leer naññ israr bee subaa ko moom israr bii Euh, tàkkusaan ko moom mu door a ñëw jiite ko tàkkusaan timis moom waxtoo mu julli woon daa ñëwaat rek mu desuwaat gee mu bàyyi ba boo xaajee guddi gi ñetti xaaj benn bi dem masalan da koo jiite vingt euh, euh, neuf heures mooy wala nangam toog a toog ba minuit wala minuit mooy mu door ñëw jiite ko waat gee suba mu bàyyi ba mu leer nañ ba koo seen xam leer nañ isfiraar mu ñëw jiite ko suba daan ne ko maa bayna haadayni waqt diggante ñaari julli yu man yu ne mooy waxtu ñu tànn moo tax borom ndax dane ne almuxtaaru waxtu ñu tànn li duhuri ñeel tusbaar min zawali shamsi mooy ci jenganiku jant ba ila axiril qaama ba lu nekk kerem tolloog moom gannaaw boo ci génnee zillu zawal zillu zawal mooy jant bu tolloo ci digg bopp ker gi ni muy toll dana am ker gu fa ne lu mu gàtt-gàtt ker googa bokkut ci xaama bi boo demee ba takkusaan ker googa day fekk nga xam ko la ca yokk bu tolloog yow takkusaan dugg na wala wala tisbaar foofu la muxtaaram yam hmm. wal muxtaaru lil asri min al qaamati al ula mu ngoog foofee tisbaar yam fa la takkusaan tàmbalee ilal isfiraari ba ca gel ga ba mu gel mooy ba mu jaune hmm. wa daruriyuhuma ilal xurub ñoom ñaar seen darura mu ngi dem ba li fekk jant bi li fekk jant bi sowut boo julli tisbaar nekkul da ngaa fay boo julli takusaan nekkul da ngaa fay waaye da ngaa julli ci waxtu darura mu ngoog wal muxtaar waxtu ñu tànn lil maghribi ñeel timis mooy qadru ma tusalla fiihi baada shurutiha mooy kemtalaay loo xam ne message yaa julli ginnaaw bu ñu matalee charte ya te mooy suruutu dafa am lu wax churutu alwujub ak churutu alsixa charti war ak charti wér daa am chart yoo xam ne bu daje julli war na la ak chart yoo xam ne bu dajewut bu daje julli gi wér na la bu bu dajewut julli gi wérut ak chart yoo xam ne bu tamit julli gi waragut moo tax mu ne qadru ma tusalla kemtalaay luñ mën a julli timis li mu bëgg a wax foofu mooy timis waxtu daa gàtt loolu la bëgg a wax li mu bëgg a jàngale mooy timis waxtu gàtt la am ëpp na sàggane te ñu bare bari ñu koy sàggane day fekk ñu jóge nekk ci liggéey kaay wala ci yoon di ñibbisi complication yi daal bari na te waxtu julli yi nag julli ko ci waxtoom dinañ ci gën a ñëwaat kanam tuuti leeral ci ay leeral bu ci leçon bu ci jotaay bi ci beneen jotaay rek waaye moom danañ ci indi yeneen leeral yu am solo mu ne wal muxtaaru lil isha waxtu ñu tànn mooy min maxibi shafaqi ila sulusi layli l awal bi bi bu soo xonq-xonq yi muy bàyyi <coughs> ci kaw asamaan si foofa la bu bu nëbbutoo bu demee ba xonq-xonq yépp dem nga xam ne amul benn asar bu fi des ci asar jant bi amul benn jeexital boobaa la waxtu tàmbali ila sulusi layli l ba guddi gi boo ko xaajati xaaj xaaj bu jëkk bi jeex wa daruriyuhuma seen darura moom timis moom ak gee ila tuluu al fajri mooy ba fajar xar mooy rek hadisu jaabir bi moom la borom laxdari tahdid moom la fi wax mooy ñaari waxtu yi nga xam ne ñaari fan yi nga xam ne Seydina Jibril ñëw na alayhi salaam jiite du salaa sallam jiite ko ci waxtu yi fi waxtu yi tàmbalee ci àll mu jiite ko fi waxtu yi yem ci waxtu yëpp ba timis moom mu julli ko jox tam ko jullee woon xadis boobu la firi ci buntam bii kon maam léeg-léeg nga jig ñu am complication bu baax ci ay julli une heure demi ak wala une heure moins quart ak une heure kii une heure deux heures quart deux heures vingt loolu lépp ci biir waxtu la ay nit nag bu ñuy ànd dañuy organiser maanaam lool li ko war a waral mooy tanzim dafa am lu ñuy wax tanzim tanzim bi mooy organiser tanzim ak taxadit du benn taxadit julli ci deux heures kese chaque deux heures et quart nga jàpp ne rek àdduna ngi tukki xam ne jàkka ji da ngay dugg ci jàkka ji imaam ñëwagu deux heures et quart jot ñëpp di wadd waddi ku ne di fëgg moom tam naan oh, waxtu jot na waay waxtu jot na waay waay kii ne di coow lu bari loo xam ne te loolu du ta du tahdid tanzim la il faut ñu xam ne ko waxtu yi mën naa tàmm mën naa dugg une heure wala une heure et demi di dem ba quatre heures moins quart wala ba quatre heures di nga dem foofu jullee fi am mbooloo ànd julli julli leen tisbaar julli leen kon jërut yenn yenn complication yi da ngeen fi jàkk coow li bari lool ci waxtu jot na ah tegal na une minute tegal na deux minutes loolu ñàkk a xam donc koor loolu du loolu def ci jàkka yi warut nekk taxdi tanzim la war a nekk kon ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen jataay bii di ñëw incha allahu taala si seen jataay bi xam le diine fii seen chaîne Tawhid TV ngeen ci ànd ak Serigne Daara Makhtar Sylla wasalaamu aleykum wa wa barakaatu.